bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa man la nabiya ba'd hal ma'na hadha an la nafiya lahum bil uhud ndax li ñu dugal juif ak chrétien ci bokkalekat yi ndax loolu dafay firi ni duñu sàmmoonteeg lañuy kóllëranteeg ñoom képp koo xamante ne am na kóllëre kóllërante nañ ak moom moo xam juif la walla chrétien la dafay daldi war ci jullit bi mu daldi matal li mu kóllërante ak moom ngir lan ngir yàlla dafa bëgg ñuy sàmm kóllëre qaala allahu taala fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inna allaha yuhibbu almuttaqiin borom bi tabaraka taala mu ne bu ñu sàmmoonteeg li ñu kóllërante ci yéen yéen it na ngeen sàmmoonteeg li ngeen kóolërante ci ñoom ngir yàlla kat dafa bëgg ñu ragal yàlla loolu dafa bokk ci ragal yàlla nit ñi nag ci jëflante bi ñuy jëflanteeg bokkaalekat yi ñetti xaaj lañ am na ci xaaj boo xamante ne moom dafay bokk ak yéeféer yi ci lépp seeni feet seeni ndaje ak seeni jotaay beneen xaat bi tamit moom it dafa ëppal ba jéggi dayo ci ñoom ci rey leen tuur seen deret jël seen alal waaye nag xaaj bu diggu doomu mooy ahlu sunna wal jamaa ñoom kat duñu bokk ak juif wala chrétien seeni feet wala seeni daje waaye tamit duñu lépp lu ñu kóllërante ak ñoom duñ koy motal ngir yàlla moo ko digle duñu jalgati ci ñoom ci tuur seen deret wala jël seen alal waaye mën nañ ak ñoom ci jënd ak jaay waaye nag dañ leen di woo ci lislaam bi nga xamante mooy bi wér